mbokk yi dal leen ak jàmm te ngeen abonné te like te partagé ci chaîne bi di Tivaouane 24 TV seenu diine ji seenu lislaam bi seen bi leen di jëriñ Tivaouane 24 TV seen bi dox saa su ngir dab seen bànneex xew mi am loo bëgg a siiwal moo xam programme la wala lu mu mënti doon jokkoo wala ak Tivaouane 24 TV ci numéro yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit ñi asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum yéen ñi seetaan Tivaouane 24 TV tey nag ñoo ngi ndakaaru dégg fi benn góor yàlla genn saalum saalum goo xam ni ma nga ca àll ba ca saalum waaye nag ñu yëg ni ñëw na Dakar rek ñu daal di daw balay dellu ñu daal di ko fi fekk si ndax duy toog di boroom xam-xam di borom baatin nekk koo xam ni waaye juróom xam nañ ko ci xam-xam waaye saalum xam nañu waaye juram. Euh, ñi fi toogee ci wàllum nguur it ñu ci bari jaar nañ ca way juram bu nu waxtaanee ci biir waxtaan wi daa ngeen ci gis loolu muy sëriñ Assane Mbay Saalum Saalum sëriñ Assane Mbay Saalum Saalum nag dañ koy bàyyi mu daal di nuyoo mbokki internet yi sëriñ bi bismillah waaw alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin assalaatu wassalaamu ala ashrafil mursalin saydina wa maulana muhammad ibnu abdullah بسم الله الذي لا يضر ما اسم شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم bokki jullit ñi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa jëmm fépp fu waay mën a nekk rek ñu ngi lay jox suñuy loxo xol di la nuyu di la balu àq te di la baal àq te ñaan yàlla mu boole ñu baal ñu teewee ko at yu bëree bëree bëree bëri barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu ñëpp daal képp ku ñuy seetaan rek ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay Masya allah serigne assane tay ñu fekk ci la fi ci ndakaaru Tay nak di suñu jotaay bu njëkk ndax nak ñu dañoo fété kadior. tas yow ya nga ca allah serigne assane nak pour ñi sétane bu ñu la joon kan moy serigne assane euh, salum salum lan nga ñuy tontu sëñ bi waaw alhamdulillah xamna nit ki wax mom moy kan dina yombu waye mu wax mom moy kan dina jafe parce que ndax nit xamul boppam doomu aadama la wax nag kañ lay xam boppam mooy kër bu deewee ba malaaka yi ñëw ñi yi gàddu ko jëm àjjana wala ñi gàddu ko jëm safara ñu ne doomu aadama foofu lay xamee boppam uh-huh. waaye mën nañ la wax lenn si ñun mooy ñun doomu daara lañ suñu pàppa da daan jàngale alxuraan di yar di yare dëgg-dëgg ci loolu lañ nekk daan yor gàtt tamit di sàmm yàlla barkeloon ay mbiram lool mu yar ñi tam wax dëgg yàlla jàngal ñi bi jàng jotee ñu jàng ba yàlla dogal ñu wëttu alquran yàlla may ñu tamit ñu gëstu ci xam-xam xemuñ ci loolu waaye dañoo dem sàkku ji xam-xamu aada muy xam-xamu cosaan yàlla may ñu ci wax dëgg yàlla loo xam ne dëgg-dëgg képp kuñ jëflanteeg rek duñu rus ñun kon kooku mooy sëñ Assane mbay Saalum Saalum boo xoolee ñun Dakaaru sax liñ fiy ñëw bariwul mm. waaye yitte yi rek moo ñuy jàpp looloo tax ñu bëri ñu ñuy jëflanteel Saalum lañuy dem fekkante fa ak ñoom ñun daal ñooy Assane Mbay dëkk Saalum ibnu euh, doomu Saalum ñu ngi nuyu ñëpp di leen jaajëfal bu baax a baax a baax a baax. macha allah Serigne Assane mbokk yi yéen ñi seetaan nag Serigne Assane waxoon na fi jamono yële lu doy waar ci tolluwaayu réew mi waaye ci euh, Ousmane Sonko. Euh, ki nga xamni mom moom fi nek muy Macky Sall loolu danañ ci ñew ci yeexantalu émission bi ginnaw bu waxtane batine baatin danañ ci ñewat muy wax ju rëy jo xamni bo lañu topé da ngeen ko jot ci Tivaouane 24 TV waye sëriñ bi dañoo dégg ñu ni da nga yor lu doy war ci set da ngay set façon seetin yoo xamni ko set seet da nga ko gis loolu bëgg na nga ci wat ci léralal ñuko ko sëriñ bi. waaw ñi ngi lay ziar bu baaxa baax benen yoon di ziar ñi sétane seetaan di wax ne laaj nga ñu ci ponk boo xam ne ku ñu xam rek ci loolu nga ñu xam mm. muy seet mm. seet moom dama ne daanaka mm. am nay jamono rusoon nañ ci sax di fayeeku nit waaye jamono moo toll foo xam ne temps dafa seer dafa am ñoo xam ne dañ lay woo di la seetloo ci ay caaxaan looloo tax ñi dem ba yàgg ñu siy laaj dara parce que doomu aadama lépp lu ko yomb rek mu fowee looloo tax seet ñu siy laaj dara waaye ñun képp ku dox ñëw ba suñ bërëb nga toog boo ñu boo ñu waxee seetal ñu ñu seetal la te yàlla tax nga dem wax la say sarax wax la say ñaan nga def ko gis sa bopp oh. parce que ñun seet kese yorut ñu oh. yàlla mu ñuy dimbale ñun tur yàlla leen yor di ko liggéey oh. te loolu incha allah bi nit ñi daañ si xam dara si kanam incha allah bi moo tax seet moom yàlla may nañu si dañuy seetal nit ba wax ko loo xamante ne ma ne la kër lu mu bëri bëri bari bur wi buñ seetalee nit ki daañ ko wax lu ko waral dégg nga diggante lu mu lu mu garaaw garaaw garaaw ñun buñ seetalee nit ki daan ko wax lan la seet moom yàlla def ñu see may si fànn yu bëri maanaam tur yàlla xam nga li jàpp tur yàlla mu ngi laa ilaha illallah ak muhammad rasulullah uh-huh. soo ko calculé laa ilaha laa dafa jàpp fukki araf ak ñaar muhammad rasulullah dafa jàpp fukki araf ak ñaar uh-huh. guddi mu ngi jàpp fukki waxtu ak ñaar bëccëg mu ngi jàpp fukki waxtu ñaar loolu lasaraarkat bu ko xamul uh-huh. pour nga seetal nit gis ko tabian dafay jafe xam nga seet dafa am ay façon uh-huh. tabian dafa am uh-huh. rawxaan am uh-huh. dégg nga léegi nit ki taa boo xamul tabian xamoo am pour nga seet ko gis ko dafay jafe lu mooy da ngay tollale rek di xool te loolu moo bëri loolu lañ bëgg mu jeex fi seet dafa am seet ñun képp ku ñu jox sa tur ak sa turu yaay ñu seetal la daañ la gis loolu moom moom moom seet moom defe naa ne euh, nit ku ñu woo daal macha allah boo tegee suñ loxo parce que li tax ñi siy laaj dara mooy nit day toog fële si saalam wala mu ab sëriñ sax woo ñu di ñu jéem a seetloo di xool. Uh-huh. léegi nag moo tax ñu teg si dara ku ñu jox dara lu mu ndaw ndaw ñu seetal la boo ñëwee ba si ñun nag nga toog laajuñu la dërëm boo ñëwee ñu seetal la te yàlla tax moo tax seet moom bam naa ne bëgguñ si sax sori. macha allah waaw. sëriñ bi am na solo euh, loolu toq na suñu nopp dégg nañ ñu ni seet moom. yor nga ci lu doy war wa ah, serigne bi nopp nak ndax jamono ji eh, doy na war nopp mom ñepp ñu ngi koy wëri ji serigne bi ndax am nga safara ci nopp wa bu wër mm. wa dafa na né li ñi gëna xamé xamee yëpp nopp si la bok mm-hmm. xam nga nopp ta ñak wa yan nopp parce que kama tara yi du ñu am nañ ci lo buñ la ko mm-hmm. dem ci garab buy dundu ñu ñu jël ko mm-hmm. dugal ko si ci reenu garab bi uh-huh. tànk garab gi deewut diggante boobu kenn mënu koo yàq te diggante bi te diggante bi dafay neex di continuer maanaam day con maanaam garab bi ni muy naatee noonu la diggante bi di gën a neex uh-huh. dégg uh-huh. am na loo xam ne si jànj lañ koy def dañuy dem jël jànj buy dund ñu def ko si parce que janj dafa am yu dee am yuy dund te loolu nit ñi xamuñu ko ñun sàmm nañ xam nañ gàllaaj bu baax a baax a baax. sànq maa la koy wax. Uh-huh. ñun sàmm nañ def nañ lépp. Uh-huh. te Saalum lañ dëkk bëri na xam yoo xamante ne tey nit ñaa ngi koy fowee nit ñi dañ leen koy junj rek mais duñ leen wax bi duñ leen wax dëgg bi. Uh-huh. xam-xam dafa làqu te dëgg-dëgg xam ba léegi mu ngi am te ku ñëw Saalum di xam ne xam am na. moo tax noob lu diggante garaaw garaaw sëy lu mu garaaw garaaw képp ku ñëw si ñun daañ la si defal lu sedd sa xol. macha allah waaw sëriñ bi nag euh, turu yàlla turu yàlla euh, dégg naa nag dañ cee yor yu doy waar ndax nag dem naa ci ku nekk waaye yow it toq na sama nopp ñu ni da ngaa yor turu yàlla boo xam ni euh, mu ngi tudd lama xana jaxalin lama xana jaxalin tur woowu dégg naa sëñ bi doy na waar de leeral ñu waaw tur boobu mag ñu bari daan nañ ko liggéey hmm. kon yow loo yor ci mag ñi la jóge maanaam man yoruma yëfu gone yoruma loo xam ne xale da ko daan yor di ko fooye man lépp lu ma yor rek. Mhm. boo gëstoo ba ci biir da nga gis ne lii lu wér la. Mhm. lii lu mag ñi daan liggéey la. Mhm. la ma boo boo ku ko xam dëgg. di nga xam ne talsam la bu wér. boo xamante ne xamul lu mënta indi. ndeysaan maanaam boo bëggee ñu toog muy dox. jëlal la ma xana. ndeysaan parce que la ma xana tur yéeme woo xam ne mag ñi dañ ci daan liggéey lu nekk. ci turu yàlla. xam nga. lamaqana dama gis ñu bëri di ko fooye dafa xam ndey xam ay doom uh-huh. doom yi mooy uh-huh. lépp lu ñëw ndey ji ñëw te doom yi ñëw rek dafa manqué uh-huh. te doom yooyu nag ñu bëri si la ñuy si lañuy si la ñuy sàggan te bu fekkente ne looy jëfandikoo la si bind am na lim boo koy bind bu fekkee looy jëfandikoo la si si si wér da am na lim boo koy wér da te lim yooyu yëpp bu si manqué rek pour nga jot càkkutéefu la maxana bi dafay jafe ah. tur yàlla moom ndax doom yi laxataatilu maxataatilu daxataatilu xaxataatilu dégg nga ba juróom-ñaari doom la ndax doom bu nekk dafa taxawee benn xaraf si si si si baatu la maxana bi macha allah mu mu mu mu jàpp doom yi moo tax tur yàlla moom dëgg dëgg xam na si yu bëri yoo xamante ne pour ñu wax ko ni sax dafay dafay dafay. dafay nee nañ ma li nga yor moom. waaw ma ni dina xaj ci émission bi. mais xam naa lu nekk rek ñu laal ci ndax euh, déy nañ ma ni yow daal tabaarakallaa say mbir moom mënuñu ko wax xajul ci émission mais sëñ bi sëy yi doy na waar euh, bu année at bi jeexee bu ñu compter ñi divorcé ci senegal sëy yi tas day bari lool sëñ bi ndax loolu mën nga ñu ci indil saafara. bu baax a baax a baax a baax xam nga ay diggante. Mm-hmm. dafa am lu koy yàq am lu koy defar. Mm. rab dina yàq ab diggante. dégg nga. ab liggéey dina yàq ab diggante. dégg nga. saytaane dina yàq ab diggante. te yooyu yëpp nit ki daf ko war a xam. balaa muy jog di téeli téeli. nit dina def loo xam ne sagom taxul mu def ko. dégg loolu nag moo tax seet seet dafa wér. dafa am fànn yu baax si seet am fànn yu yu bon ci seet. dégg moo tax sama baay daf daan wax ne. gàllaaj jàng bu bon bi jàng bu baax bi yépp baax na uh-huh. l'essentiel yow mi koy def xamal li ngay def dégg nga uh-huh, li tax nit dem jàngi karaté pourtant xeex la uh-huh. mais jàngut ko pour toroxali nit daf koy jàng pour ëllëg si biir bu ñu ko bëggee toroxal loolu tax nit ñi dem jàng xam-xam ñun nuñ mënee xam-xam bu ñuul noonu lañ mënee xam-xam bu weex muy nooraani yu dégg nga sulmaani yu dafa am nooraani yu dafa jamono bii nag ñu bëri si li ñuy liggéey sulmaani yu la <coughs> suñ maa moo tas kër yi moo tax diggante yu tas yu bëri ñun suñ la ko jàppalee ba bàyyi la ko si wàllu nóoraan yu mm. nóoraan yu moo man suñ maa mm. moo tax yàlla dimbale nañu si côté boobu alhamdulilah dañ ci sant yàlla bu baax yoolu nañ si loo xam ne képp kuñ ko defal rek di nga sant yàlla si côté boobu noonu macha allah mm-hmm. am na solo kon yéen ñi nga xam ni yéen a seen sëy yi am problème daañu leen defal numéro ci suuf noonu képp koo xam ne woote nga si numéro boobu daa ko jot feebar gi bari na jamono ji dund gi nooyi gi ñuy nooyi euh, baaxatul feebar gi bari ma dégg na ñun da yor ween benn tur boo xam ni euh, xam suuna xaaf sëriñ bi luy loolu luy xam suuna xaaf xam suuna xaaf de ah. secret la bu doy waar boo xamante ne dëgg-dëgg man li may wax rek duma ma du ma ne yor naa lu yëfu gone Mm. lépp lu ma yor rek ci mag la jógee xam soo na xaaf tey mag boo ko wax rek dina geesu laajaat la lan mooy loolu allahu akbar mm-hmm. mag boo taxaw ne ko lan mooy xamsoona soo xaaf mm-hmm. dina la ko wax ndax bépp feebar boo xam ne mu si nit di ko yàqal ak feebar bi nu mu mën a doon mm-hmm. xam na xaaf da koy faj dégg nit mën na tëdd ci lalu sukuraat sax xamsoon a xaaf ñëw faj ko ndax xamsoon a xaaf dafa nekk gàllaaj boo xam ne hmm. nit du ko laal lu dul ne yow li nga waroon dund dina pilis allahu bu fekkee nag si wàllu dund di ko yor mu dee hmm. dañ la ko bindal ngay dund yor ko hmm. accident moom mucc nga si même bu fekkoon oto da cee dugg mu def accident yow doo doo doo si am benn ngaañ ak lu accident bi garaaw garaaw loo ci am benn ngaañ xam soo na xaaf daal secret la boo xam ne wax dëgg yàlla bëgguñ sax di ci xóot uh-huh. di ci sori di ci wax nit ñi yoo xamante ne dañ koy dem di ko jéem a kii déedéet uh-huh. nekkut xam-xam bu ñuy fowee te ñu si bëri dañ koy yëkkati di ko jéem a jox nit fekk damm nañ masha allah te loolu moo nekk problème man loolu moo tax bëgg si wax wax. allah am solo bi am solo kon mbokki yéen ñi bëgg euh, mucc kaaraange waaye bëgg mucc ci yenn feebar yi euh, boo leen jokkoog moom dana leen ci indil ay saafara waaye siru dunya sëriñ bi sëriñ bi siru dunya sa dégg nañ sëriñ si ku nekk siru dunya siru dunya mais bëgg xam yow siru dunya lan nga ñu ciy waaw siru dunya xam nga dunya lan mhm. siru dunia mooy secret dunia. Mhm. secret àdduna. àdduna. Mhm. secret bi biñ ma koy jox. Mhm. dañoo tëjoog man si néeg. ndeysaan. dog ma koo jox. siru la boo xam ne képp ku ko am sa coono jeex na. allahu képp kuñ ko am liggéeyal la ko niñ ko war a liggéeyee sa coono jeex na. Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam boo calculé. xaraf yi daf lay jox quatre. siru dunya lim yi nga war a bind. Uh-huh. lim bu nekk limu Muhammad nga koy bind. sallallahu alayhi wa soo ko bindee nag am na yu muy àndal. foofu tam la uh-huh. problème bi ne nit danga dem mu jox la secret bi. Uh-huh. fekk na am na. am na lu ca manqué lu mu lu war a àndal si wàllu gàncax. parce que alquran dafa composé wu. ak xob yeeg ren yi. te loolu nit ñi dañ ko war a xam. moo tax soo ko defee rek mu manqué rek da ngay jàpp ne yow alquran sax baaxu doxul. fekk na déedéet. alquran mu ngi fi te lim mënoon ba legi mu ngi koy def uh-huh. motax siru dunya dal mag ñi bañ nañ ko ba liñ ko tuddé deug la te képp ku ko am di nga xamné li mag ñi waxoon deug la dunya kay dafa jéxal wax ji siru dunya ku ko am kay yow uh-huh. dunya bi doto fi son uh-huh. looloy siru ma sha allah serigne bi amna solo solo euh, bo ba legi waxtan wi mom ci xam-xam dong lañ ko euh kon yaakar na ni ñi seetaan dinañu xam ni tay jaakarlo nañu borom xam-xam deug ndax ci lepp ci xam-xam lañ ko teunk walu mag nak serigne bi wallu mag mooy lan. waaw loolu mooy wëllu mag. Mhm. Euh, olof yi ñoo jël ne wëllu mag. Mhm. waaye du wëllu mag. Mhm. wëllu nag la. wëllu nag. waaw. Uh-huh. waaw ndeysaan wël bi nag xam nga lu tax ñu naan ko wëllu nag. Uh-huh. mag ñi wëllu nag lañ ci daan laaj. Mm. dëgg la mag ñi boo ñëwaan ñi la koy defal dañ naa la ndax am nga lu nag. Uh-huh. ñi dem ba yàgg wëllu nag woowu lañ changé na wëllu mag. xam na tam ñu ne déedéet uh-huh. dañ ne lii wàllu mag la uh-huh. wàllu mag uh-huh. waaye ñaar yépp wér na ñii ne nañ wàllu mag la ñii ne nañ wëllu nag secret bi loolu la maanaam képp kuñ ko mos a jox wëllu nag ngay joxe wala wa ilaatam baa ñi la koy jox dañ naan la da mbaa da mbaa mag nga mbaa buñ ko jox xale dëgg la mooy mooy wël mooy wëllu wëllu wëllu mag. Oh. mooy secret boo xam ne dox ma waaw. boobu dafay dox si kaaraange. dafay oh. dox si ubbeeku. Oh. maanaam tey suñ jëloon fetal di la ko dóor sax. mën naa bañ a tàkk. allahu akbar. dégg nga loolu jaar naa muy wëllu wë wëllu mag. macha allah maanaam dañ koy liggéey si ndombo. ndombo boo xam ne day am juróom-ñaari kii xam ay bootal. du bii nag waaye comme saaru bii lay doon. parce que bëgguñu di wane yenn yi. waaye suñ ko liggéeyee ba pare def ko liñ koy def. ëwee ko deru bëy bu ñuul dama ne la fépp foo xalaat ne yow boo fa demee ragal fa maanaam loolu bëgguma sax man ku ñuy woowee bandi mu am ko allahu akbar déedéet bëgguma koo xam ne jubut mu am ko bëgguma ko képp koo xam ne yaa ngi garde si mhm. koñ wala nga nekk foo xam ne danga dafa xaw a dangereux mhm. ñëwal ut ko ut ko macha allah dina la aar macha allah am na solo euh, wallu mag a nekk noonu euh, sëñ bi nag ay jaaro yi dama dégg ñu ni koy defar jaaro yooyu sëñ bi ci lu muy dox jaaro moom mhm. xam na façon bu ne man dama ne jaaro duma ma ci liggéey lu bari benn jaaro laay liggéeyal nit te su ma ñëwee fekk nga takk fukki jaaro yoo xam ne da ngaa jàpp ne dafa am gàllaaj mën naa ne la dindi ko parce que jaaru benn bu baax doy na ci uh-huh. yaa ngi dégg uh-huh. jaaro dëgg bu baaxee jarul ngay xatal say loxo yor naa ci nag boo ñëwee sans dépasser bi nga bëgg uh-huh. li ci ëpp nag nit ñi di jël mooy buy hubbi ndax sama jaaro ku ko takk ku ko takk semaine gisoo yokkute si si sa bopp bu la neexee ñëwal delloo ma jaaro bi te xam ne jaaro bi doxul jaaru bi waaw allahu akbar jaaro bi su ma ko defee li ma koy def oh. nàndal ko def ko oh. li ma koy def man nekkut damay dem rek for jaaru jënd ñëw jox la déedéet oh, sama jaaro dama koy liggéey man damay liggéey jalaal xam nga ismu jalaal ismu jalaal waaw moo ma jox jaaro bi allahu akbar dégg nga jalaal moo ma jox jaaro bi te képp ku may liggéeyal des fois dañuy wax sax diw dafa tàng wala dara fekk na déedéet dafa am tur yàlla yoo xam ne boo koy liggéey nit ñi dañ dangaa da ngaa naqari dara sax dëgg la donc loolu la moo tax jaaru moom yàlla may nañu si bu baax a baax alhamdulilah. macha allah am na solo am na solo euh, kon mbokk yi gis ngeen noonu ba léegi wax xam-xam rek lañ fi waxtaanee waaye sëriñ bi bàyyi na ndax jamono ji nit ñaa ngi fi bëgg a siiw ah, ñi bëgg ñuy dégg seen tur. bayra sëñ bi nag sëñ bi bayra moom nit ñi yittewoo nañ ko de. bayre mhm. yàlla may nañu ci alhamdulilah. Mhm. loo xam ne sax dafa doy waar. Mhm. dama ne benn saar la ci alquran mhm. soo ko bindee ñetti yoon nga taxaw si géddu bëy mhm. demal fu bëy yu bari nekk nag nga taxaw sangoo ko boo ko sangoowee ñëpp daañ la dégg allahu akbar xam na yoo xam ne sax duma ko wax waaye boobu laa xam ne bu nit ku dëgër fit mhm. na ñëw ma defal ko ko mu toog ren ba déwén bu déggul ñu koy coow est-ce lu ma mën a jox bu ñëwee ma delloo ko allahu akbar waaw si bàyyi rek xam naa si nag yeneen yoon yoo xam ne bayre njaay la bu ko nit ki bëggee mhm. muy lu mel nii benn baat ñetti baat yoo xam ne dafa tàqali ko mhm. soo ko soo ko jëlee boole ko suufu marché gi sa aju di ko mhm. laal lépp looy jaay si wàllu commerce baax na waaye su fekkente ne bii nga bëgg nga xam ne àdduna yépp lay dégg bii boo ko defee moom di nga di nga di nga di di ba moytuwul rek nga dem wuti kaaraange parce que li ñuy wax janax daf ne dafa ñëw si sëriñ bi ne ko defaral ma bayre uh-huh. sëriñ bi ne ko tee ngaa ut kaaraange mu ne ko defaral ma bayre rek uh-huh. man bayre rek laa bëgg sëriñ bi defaral ko bayre mu takk bayre bi na tëll rek di deseeg dajeeg muus uh-huh. wëlbateeku ñëwaat si sëriñ bi ne ko boole si kaaraange parce que bu demoon janax ji da koy rey muus bi da koy rey wallaay dëgg kon loolu la moo tax kuy ut bayre yenn bayre yi na nga utaale kaaraange moo tax man lu si bopp bala maa defal nit ki bay bayre rek dama lay digal nga jël kaaraange. macha allah te kaaraange tam am nañ ci lu wér. Aïcha bayra baa ngi noonu numéro baa ngi noonu ci écran bi yéen ñi bëgg a déggante ak moom euh, sëriñ bi nag ñaari question lay boole tey ji ndax waxtu waa ngi ñuy dab. dëddale ak fay wax. dëddale ndax nit dina gis doomam di ànd ak koo xam ni xëy na mën na soppi jikkoom. mu bëgg leen a dëddale wala yu mel noonu. fay waxit kër am coow wala famille bu am coow sëñ bi loolu lan nga ci lan nga ci am comme saafara. waaw dëddale. Mhm. am na ñu ko def. Mm-hmm. maanaam dëddale ci benn côté dafa baax mm-hmm. sa doom ànd ak koo xam ne day tux day naan day def lépp mm-hmm. nga bëgg mu tàqale kook moom parce que mën na koo yàqal jàngam boo ñëwee xam na dëddale yu ñuy def yoo xam ne karawu xaj ngay wut karawu muus liggéey liggéey liggéey boole ko dem ba ci diggante ñaari yoon yu tàqale ko nga taal ko soo ko taalee wëlbatigul wane gannaaw diggante boobu jeex na allahu akbar ñooñu seen ànd lu mu neex neex. Mhm. dootuñu ànd. allahu akbar dégg mhm. loolu dëddale la. macha allah beneen bi nga ne mooy. beneen bi mooy fay wax. fay wax. Mhm. fay wax moom am nañ ci loo xam ne. kullama awqadoo naara. benn aaya la. am na noo koy liggéeyee dugal tur kër lu coow la bari bari boo bëggoon ñëw coow li a tekk bindal aaya bi. xam loo ko lil xar bi. bind ko. Mm-hmm. xam looy yaatal ci aaya bi. Mm-hmm. da xam looy yaatal ci kaw am looy yaatal ci mm-hmm. beneen côté bi. nga jël tur ya dugal. parce que bëgguma koo wax mu. mu leer mu leer su ko defee nga dem hut néegu ñax. nga rocc si. xam naa Dakar yomb fi. nga hut néegu ñax nga rocc ñax mi dem gas pax ba mu nga jël ñax mi dugal si daal ko taal. boo taalee bàyyi mu tàkk bu tàkkee tàkk tàkk tàkk ba ci digg bi nga jël saafara bi fayeeku ko coow loolu jeex na macha allah coow loolu wallaay bëri na luy yëngu ci réew mii mm-hmm. hmm? suñ bëggoon mu arrêté rek mën nañ def loolu macha allah waaye ñun li ñuy wax rek xam-xam dañu daf ñoo jaraloon ñu jóg moo tax tamit wax dëgg yàlla lu si bëri duñ ko fooy. Mm-hmm. waaw macha allah sëriñ bi am na solo lool euh, ci li nga indi ci fooy wax ak yi waaye question bu mujj bi laataa ma lay jox kàddu gu mujj gi la wala laataa may dugg ci ci ci actualité parce que dinañ ñëw ci actualité question bu mujj bi mooy mulku Souleymane. Mm-hmm. sëriñ bi mulku Souleymane ñu ngi koy dégg ci sëriñ si ku nekk di wax waaye saalum saalum nag ko xam-xam ko ci xam-xam moo tax faw nga lay indil ñu ci ay leeral. waaw mulku Souleymane mooy. Mm-hmm. nguuru Souleymane. ndax ñi fi nekk ci euh, dëkk bi yépp surtout jamono ji nga xam ni xëccoo nguur gi bari na ci euh, ñi nga xam dañoo bëgg nguur defe naa ci loolu lay dox waaw mulku Suleymaan de mhm. yaakaar naa ne ñiy dox ci politique la gën a yitteel mhm. ndax wàllu nguur la mhm. wàllu nguur ndax billaahi lësi laa ilaha illa huwa du ma wax di waat sax li may ñëwal bëriwul mhm. ndeysaan waaye képp kuy yëngu ci politique mhm. te bëgg a falu mhm. li may wax nii liggéeyal naa ko benn waay boo xam ne bëgguma sax tudd turam dañ ko mujj tabb te foogutoon ne sax daañ ko tabb si eh, eh, jamono Macky Sall yi ñi mujjee tabb wallaahi asim li may wax bu fekkee du dëgg yàlla bu émission bi yegg bi ma ko ko defalee dañ koo woo tagg ko yére bii ma sol moom ma ko indil allahu akbar billaahi macha allah kon li may wax mulku suleymaan nguuru suleymaan la nit koo xam ne da ngay yëngu si nguur bëgg a falu si benn mbir mm-hmm. ñëwal ñu xool say mbir bañ ne la d'accord ne daañ la ko liggéeyal parce que lépp lu ñuy liggéey ñun dañuy xool ba xool xam ne lii lu mën a nekk la ñu laajal lañ lay laaj defal la ko xam ne résultat day ñëw loolu moom ku dul politicien tamit lépp loo bëgg a ko entreprise boo nekk wala sax ngay jaay bëgg ñi nga ne ne si si bërëb bëgg ñi jox la fa bopp nga yëkkate ko fa Hmm. mel ni buur foofu ñëwal ñu hmm. defal la ko. macha allah macha allah sëriñ bi am na solo lool euh, waxtaan nañ fi lool ci xam-xam te bi ñu waxtaanee gis nañu xam-xam ci yow bu baax a baax ndax li ñu fi wax yépp ci xam-xam la tabaarakallah wax nga ñu fi mulku Suleymaan xam suuna xaaf ak yeneen yoo xam ne ci seet geeg yépp waaye sëriñ bi dañuy dem ci actualité ndax bu nu ñoo tàggoo te duñu wax ci actualité sëriñ bi naka nga gisee tolluwaayu réew mi ci politique bi gis nga fan yi xeexoo yi manifesté yi ak woo gi ñu woo Sonko sëriñ bi naka nga gisee. dafa di tolluwaayu réew mi. loolu dama yàgg di ci wax maanaam politique. Mm-hmm. dama yàgg di ci wax. Mm-hmm. man faraluma benn politicien. Mm-hmm. amuma ci tam ku may jàpp walla ku may bàyyi. l'essentiel man sénégalais yi laa nekk ndax dama am benn rôle ñoom ñu am benn rôle. sama rôle mooy nu ma dimbalee jaami yàlla yi si xam-xam bi ma yàlla jox. te xam-xam bi. da bàyyi li ñuy wax nit dafay am dignité. man baykat laa saalum mhm. saalum laa dégg nga mhm. li ma bëgg mooy réew mi tegee ci yoon mhm. nit ñi man di dem dikk économie bi dox léegi daaw wax naa ci benn wax ma ne Ousmane Sonko na def attention gën a def ñaan ci boppam jàpp na ne am na ñaan waaye des na ba léegi nit ñi téye kurus xam nañ lool allahu parce que boo xoolee daaw bi ma koy wax dama ne ñu bëri ñi ngi ànd ak moom jàpp ne dañ koo bëgg wallahi asim bu doon ni kii na nga dagg vidéo bi dugal ko. Hmm. jàpp ne dañ koo bëgg fekk na bëgguñu ko dañoo ànd ak moom rek. moom Ousmane Sonko moom moom Ousmane Sonko. Hmm. dañoo gis ne yoon wi dafa bëri pakk. Hmm. ñu jiital ko ba pare jaarale ko si yoon wi bëri pakk bañ bañ koo jàddaloo. Ah, souvent mooy te ñu dañoo dem ba yàgg dañoo wàññeeku te loolu feeñ na. waaw si politique. te moom ba léegi nii ma lay wax Macky Sall troisième mandat bi ba léegi mu ngi si teg bakkanam. allah ba nii ma lay wax changé wut ci ñun liñ gis si wàllu seet. xam nga hmm. sànq wax nañ la ko. mais jàpp nga ni mën na changé. non mën na changé. Hmm. parce que nit ñaa ngi wax ak moom si liñ ma gis man. Hmm. waaye ba léegi dafa changé gul. te Macky dafa taxawee point boo xam ne tey jii mu mu mu mu bàyyi Ousmane Sonko mu mu opposé wu. ba jël réew mi dafa baaxut si moom. waaye nag mënoon na ko gën a rafetal ba nga xamante ne bu ko jotee dina gën a oyof si moom waaye fi mu toll da koy gën a diisal. ndax li tax mooy. réew mi xam na lu fi jaar loo xamante ne. su fekkee Ousmane Sonko falo na rek. walaay di nga gis lu doy waar. da nga gis ñu dat seen bopp yooxu da nga gis ñoo xam ne seen dund yàqu na abadan. te loolu gis nañ ko si politique bi. moo tax Ousmane Sonko daal. pour gars yi may ko jàmm. man nag duuma politicien li ma gis laay wax. ndax damay fanaan si kurus am cër si réew mi. lu ma xam-xam may ma wax ko lu ma xam-xam mayut ma noppi. lu ma sama xam-xam mayut. du ma si duggal Uh-huh. waaye réew mi dañ cee bokk am ci wàll uh-huh. ñu gis ne tamit Ousmane Sonko jàpp nañ ko si point boo xam ne uh-huh. te ñoom tëgg nañ scénario boo xam ne pour ñu bàyyi ko mu bokk élection boo moytuwul du yomb man gisaguma loolu waaw yow boo ko doon dénk Ousmane Sonko en tant que nit ku mbokkam mbokk jullitam loo koy dénk man su ma ko doon dénk mu xam ne nguur yàllaa ko yor mu dal te xam ne wa anal faddala bi yadillaahi yuuti man yashaau wallaahu sul fadli azim ngënal yàlla moo koy def si uh-huh. loxool ku ko neex te yàlla kat nguur dafa am doole daf see comp jox doomu aadama yi uh-huh. te doomu aadama bu mu jox rek cëral na la loo xam ne yow sax xamoo ko uh-huh. moom mi ko comp jox doomu aadama yi moom rek moo ko mën a dindi waaye xët-xët du ko dindi. Uh-huh. dara du ko dindi. Uh-huh. moo tax na teey nguur su ko yàlla tuddee si jëwam dina si jot. macha allah sans mu sonn. ndax uh-huh. am na ñu ko si gën a sonn fépp. si politique yàlla may na ko si loo xamante ne tuuma sax moo tax mu yegg fa moom. moom Ousmane Sonko. waaw ah, wallaay parce que. sénégalais bëggut ku ñuy néewal doole. dëgg la Ousmane Sonko daanaka problème Adji Sarr si la ko ñu bëri. xamee wallaay bëri na ci réew Euh, doomu Abdoulaye Wade bi si politique. la ko ah. ñëpp xamee. Ah. si biñ ko tëjee. Ah. Khalifa Sall biñ ko tëjee la ko ñëpp xam. Abdoulaye Wade jamonoom bi mu tëjee Idrissa Seck. bës bi sawaay am. daanaka amoon na ko. waaye dafa mujj yàqule. kii loolu laa koy bañal. ndax xam na avenir te ay waxam tegee na. politique nag wax ju tegee da cee am solo. waaye xamuñ lu muy jëf ëllëg waaye su fekkee yàlla may na ko ba mu jot réew. ñu ngi koy ñaan rek mu sàmm. parce que wax moom ak jëf dafa wute. macha ñu ñaan ñaan ñu ngi ñaan ñu ngi koy ñaanal tamit mu jot si. Mm-hmm. macha allah donte nag fooguma mu yomb. Mm. waaye ñu ngi koy ñaanal si dog ñi la ni président bi di doxalee moom mi yàlla jox kàttan gi. est-ce que yow bu rafetlu nga ko. ndax nit ñi dañoo jàpp ni daf koo xañ liberté waaw si benn côté. Mm-hmm. xañ na ko liberté am. Mm-hmm. waaye si benn côté xañu ko liberté am. su ma doon rek ma wuyu. Mm. waaw. kon daa war a wuyu ji. dafa war a wuyu ji pour man. Uh-huh. na dem wuyu ji. Uh-huh. ci ki la woo bu la joxut wax la. est ce que bu demee duñ ko téye moom loolu la jàpp lu ñu teg la. ba pare waaw am loo xam ne nit ki bu ko du ko ragal. Uh-huh. doomu aadama. ragal yëpp yàlla la. demal dooma euh, Ousmane Sonko askan wi ñu ngi si ginnaawam. na sant yàlla Ousmane Sonko bu digle woon tey watu nel ñëpp watu nel. ah. loolu yàllaa ko ko may est-ce yow am nga loolu. Uh-huh. Macky Sall sax amul loolu. Uh-huh. kon na dem wuyu ragal yëpp yàlla la na dem. lu ko ci fekk bu mu gëm ne nit a ko ko teg na xam ne doomu aadama moo ko ko teg. ndax xam ne yàlla moo ko ko teg du doomu aadama. ndax yàlla lu mu bind si jëwu nit xalaa ku laal nit ki dina fa jaar wala dina ko def ëpp laa dal ñaata kii la opposé tey ji nekkul président ba wàcc. ah bi muy falu foogu ko woon. kon biram yàllaa ngi noonu li may dénk daal loolu la te ñi nga xam ne ñu ngi xeex di dafa bëri ñoo xam ne daanaka sax ñoom bay bandi lañ uh-huh. nit dina noonoo nit sax dem rey ko fekk yow uh, nguur kii bi du ci dara macha loolu na ko nit ñi bàyyi xel bu baax a baax te jéem a ut kaaraange jamono bii nit ñi dañoo tollu ci kaaraange uh-huh. nit ñi nañ jéem a ut lu leen aar uh-huh. jéem a sàmm seen bopp parce que te jamono bii jamono bu doy waar la de ku bëriwul sax ñu bëri daanu sa kaw Loro allah loolu ngi len koy denk te ñi bayyi ñu moytu bo jangé histoire dañ la netti ne mardi bisu deret la. te bo xolé procès yu bari mardi lañ koy def moo taxit deret day tour rek. kon procès bi ñu kiyat ba mardi kon dang ci tit dama ci tit ndax mardi ni bi bii. dama la wowut waye man daf ma fekk saanu waye xamna naa naa bi tam itam bakkan allahu akbar xamon naa ko. te dafa mel ni it mardi lañ ko yóbbuwaat. mardi. Mhm. demal si jàng taarixkat yi ñu wax la. Mhm. mardi bisub deret la. allahu akbar. buñ mënoon di moytu bisu mardi bi si ci ci yii moo mhm. gënoon. te ñi jàng xam nañ li may wax. macha allah waaw loolu daal la ñuy. macha allah tàggatoo ñu bàyyi la kàddu gu mu gi. waaw euh, ñu ngi tàggatoo. lépp loo xam ne wax nañ ko mu jaar yoon rek. ñu ngi koy sante yàlla. lépp loo xam ne wax nañ ko mu dëng. ñu xam ne rek yéene bi duutoon loolu mhm. yéene bi defar la ak mhm. laaxi biir jaam yàlla yi pour ñu jëriñu loolu rek moo doon suñu yéene ñu ngi nuyu bépp kilifa diina ak mhm. fu mu mën a nekk rek ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàcc waaye di la ñaan yàlla yan na yàlla oyofal yan bi si yow te may la wér may la kàttan ndax ñoom it am nañ cër Sénégal dafa nekk réew boo xam ne réewu waxkat la noppikat rek moo fiy jëriñu dégg kilifa yi bu ñu leen bëgg a rek saa boo demee bay jàpp ne yow li ngay wax mooy njëriñ sax ñu foofu juum loola. moo tax Sénégal sax kilifa yi man seen noppi dama see ànd. Mhm. nañ noppi. macha allah waaw. waxkat bi noppikat bee ko jaaxal. Mhm. téeli téeli ji yëpp ñàkk waxu Macky sàll moo ko gën a waral. Mhm. moo ko gën a waral. da nga posé doo posé doo lii man li ma gëm sax mooy nañ ko ba mu posé. bu woote jotee xanaa du karta mooy fal wala carte falut uh-huh. loolu laa bëgg a laaj bu uh-huh. fekkee carte mooy fal nañ ko ba mu posé moo xam uh-huh. bu posé ñuy fal fal ko wala ñuy folli folli ko loolu la rek di ñaanal ñëpp jàmm yal na yàlla may ñëpp jàmm dafa ñu tawféex may ñu fatwa ak taqwa barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke alquran ñu ngi gërëm ñëpp wa aqiru dahwaana an alhamdulillahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw mbokk yi mi ngi noonu Serigne euh, Assane mbay Saalum Saalum bu mag bi boroom xam-xam bi moom la ñu fekk si woon tey ginnaaw teewam fii ci Ndakaaru jóge Saalum ñu daw woon ñëw bëgg a ak moom waxtaan ngir comme ni ñu koy defee saa su nekk rek képp kuy borom xam-xam rek di borom njariñ ñu fekk la fa nga nekk présenté la askan wi ngir ñu mën a jariñ ci sa xam-xam kon mi ngi noonu Serigne Assane mbay yéen ñi bëgg a jokkoo ak moom numéro ma ngi noonu ci ecran bi boo leen wootee rek di ngeen ko jot incha allah directement ngeen euh, euh, mu saafaral leen seen ay bëgg-bëgg وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته